bokk na ci leen mën a dal jàngoro monsieur le finance monsieur le ministre des finances moo tax ma bëggoon nga bàyyi xel ci benn tomb monsieur le ministre des finances ci les établissements publics de santé EPS yi dafa am situation des contractuels de la santé ñu ngi toll ci juróom benn junni juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent six mille huit cent cinquante neuf ci établissement public de la santé yi téeméer boo jël juróom ñett fukk lañ ci maanaam quatre vingt pour cent bi ngay nekk directeur du budget monsieur Moustapha Ba tey nga nekk ministre des finances et du budget fekkee nga fi ñuy signe accord bi nga xam ne euh, deux mille vingt deux moo doon joxe ay indemité de logement indemité de logement yooyu ñu joxoon agent de santé yi ñoom ñu bokk ci depuis bés boobu nga fekkee ndaje bi boobu defe naa lay daaw Daouda jàll moo nekkoon ministre nga fekkee woon ndaje boobu boobu ak léegi ñoom kenn fayu leen seen indemnité de logement monsieur le ministre bëgg naa quand même say service seen gouvernement ngeen taxaw ci loolu parce que injustice la deux mille vingt deux ak léegi six mille huit cent cinquante neuf agents ragal naa ne ëpp na ay milliards donc monsieur le ministre ma lay interpeller ci loolu ndaxte xam naa ne maîtriser nga dossier bi ndaxte xam naa ne témoin nga woon fekkee nga woon xam nga li may wax te ñoom 6859 pères mères soutien de famille yi nga xam ne ñu ngi liggéeyal askan wi ci domaine boo xam ne wér-gu-yaram ñëpp xam nañ ne wér-gu-yaram boo ko amulee li ci des amul solo monsieur le ministre bëggoon naa itam ci fànn boobu nga bàyyi xel itam ci application du décret 404 2016 du 6 avril 2016 portant statut des contractuels des établissements publics de santé mi nga xam ne ñu ngi ko waroon appliquer depuis 1er janvier 2017 ba tey kenn appliqué wu ko kon muy ñaari injustice ci li nga xam ne moo dal 6859 agents des établissements publics de la santé sànq monsieur le ministre yaa ngi may won état wu treize travailleurs u hôpital régional yu Ziguinchor yi nga xam ne ñu ngi leen ameel xaalis depuis mbas mi muy vingt millions j'espère que dinañ leen fay ci nu ma gën a gaawee monsieur le ministre des finances parce que boobu ak léegi kenn fayu leen monsieur le ministre Euh, démb yaa ngi expliquer député yi ci ne Sénégal dafa bokk FMI ak Banque mondiale mu am diggante bu dëgër këng bu dox diggante Sénégal FMI ak Banque mondiale monsieur le ministre des finances foofu bokkuma ci gis-gis ak yow ndaxte monsieur le ministre des finances loolu du wax ji wax ji mooy. kuréel boo xam ne moo tax Sotiba tëj munoo wax ne ku munoo wax ne kuréel bu baax la kuréel boo xam ne moo jur jafe-jafe pour NSTS mënoo wax ni kuréel bu baax la kuréel boo xam ne moo tax astuut yi ñu amoon ci ay industrie mënal suñu bopp ci wàllu piis ak feneen ak feneen mu tëj kuréel yooyu mënoo wax ne ay kuréel yu baax lañu monsieur ministre kuréel boo xam ne moo ñu imposer nouvelle politique agricole ak nouvelle politique industrielle yàq suñu mbéy ba tey jii nii ñuy soog di commencer wax souveraineté alimentaire monsieur le ministre des finances kuréel boobu mënul nekk kuréel bu baax monsieur le ministre des finances kon ci fànn boobu ñu sommes divergents waaye divergence nag mun nañ bañ a tojante bopp divergence nag mun nañ bañ a yóbbante kaso divergence nag mun nañ bañ a complot wante divergence nag jarul ñu ciy tëj ay doomu aadama divergence yooyu moom la ñu am bu baax a baax et Sonko cinquième président du Sénégal dina changer les relations entre le Sénégal et ses institutions que sont le FMI et la Banque mondiale ndaxte kuréel yooyu nekkul ay kuréel yu baax pour askanu Sénégal nekkul kuréel yu baax pour bépp askan yu nekk ci àddina bi am na benn ministre bu am lu mu wax mais yow ba léegi waxagoo ñu ban kuréel la FMI ak banque mondiale développé ndaxte au moins dama yaakaar ne am nga honnêteté intellectuelle et que débat lu mu neex neex neex neex neex am na loo xam ne munoo ko soutenir donc kuréel yooyu c'est une erreur de votre part c'est une erreur de ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nangu di def allégeance à ñoom ndaxte mënuñu développer réew mënuñu développer euh, askan. monsieur le ministre euh, des finances kon bëgg naa xëy na euh, bu ci kanamee nga indi ñu ay leeral ci notamment la situation des 6859 agents contractuels des EPS fi may daanelee rek mooy fenn Sonko mooy suñu candidat incha allah Sonko la ñuy fay la ñuy fal cinquième président de la République du Sénégal mais lancer un appel à tous les Sénégalais et à tous les patriotes du Sénégal parenage bi mu ngi soog a commencé un million deux millions trois millions de parrainage de parrain nañ ko utal basiru Diomaye fay mi nga xam ne suba ñun ñëpp patriote du Sénégal ci Afrique ci àddina si nañu mobiliser wu pour wan président Macky Sall ne lii mooy tontu bi ñuy indi ci manipulation justice bi mu def ajjuma et que Ousmane Sonko on peut l'emprisonner mais on ne peut pas le vaincre un patriote il peut être emprisonné mais il ne sera jamais vaincu donc sénégalais yi de Saint-Louis à Kédougou de Dakar à Matam, de Kaulak à Fatik, de Touba à Ziguinchor, nous mobilisons en une semaine 2 millions, 3 millions de, de parents pour Bassirou Diomaye Faye ñu won leen ne mbir mi jeex na nga jënd say 40 milliards de ngànnaay jënd say 40 milliards de ngànnaay yow Macky Sall bëgg a xeex ak ñun ñu ne la xeexuñu élection la ñuy dem ak yow bëreek yow